maa ngi si jàmm. waaw sant yàlla bu baax. après victoire bi noo bi victoire sa victoire. sant yàlla rek comme victoire yi ñu doon am rek noonu lañ ko féetee quoi. léegi sa combat bi lañ gis bool yëpp nekk si ginnaaw loolu dañoo def li leen war rek dañoo def li leen war loolu moo leen war loolu la ñu def ko maa ngi profité di leen nuyu ñoom ñëpp di leen sant bu baax gis naa taawaay bi gis naa lépp lépp rafet na. après ce combat foo jëm Ndiaye Tine fa Garga 2 Tyson 2. ku pare pare naa. xale yaa ngi dégg. nga wax de. Tyson Garga 2 ku ci pare pare naa. kon daal ren mën nañu jàpp ni. Garga dina bëri waa deux combats ba trois combats. soq soq soq mar la ku daan bëgg naa. Eh waay lamb yi doon naan yàlla. waaw noonu la demee. ñooñu ñoo gisee tey grand combat bi. waaye neex rek lam la rek waa di wax ki la meilleur gagne mais lam la rek sport la rek ku ne mën a daan sa morom waa noonu la demee ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm. merci beaucoup. ah jaww noonu la rafet na jaajëf.